ku nekk ci leeram nga mën a jëriñu te Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif nee na balaa ñuy mën a jëriñu ci yonent bi nee na ñu def ko miroir lu am solo nee na bés bu xëyee ñu bàyyi sunu miroir yi te seetu ci yonent waaw loolu am solo la ndax day tax benn du ñu raw waaw Cheikh Tijani na balaa ñuy jëriñu ci yonent bi nee na ñu def ko miroir waaw nee na bu nu xëyee sunu miroir yi nuy seetoo nee na ñu bàyyi ko. te nee na seetu ci yonent bi ndax bés bu nañu gis ci moom jukko ju rafet ju nu mën a appliquer waaw te axiru zaman bu jotee loolu rek moo nu dese waaw axiru zaman bu jotee loolu dong moo nu dese ci yonent bi waaw sayyidatuna Aïcha bi mu waxee yonent bi na ko dénk ay kàddu comme moom dana fi des ca gannaaw bokk na ci kàddu yu ko yonent bi dénk mooy fexeel ba uuf ñépp te nga yaatal fexeel ba uuf ñëpp te nga yaatal sayyidatuna Aïcha bi mu ne yonent bi kat na ko dénk ay kàddu ndax boobu yonent bi wax na ko daa fi des lu yàgg sama gannaaw waaw yonent bi ni ko na nga uuf ñëpp te nga yaatal waaw moo tax gis nga bi naar feq yi commencé jaxase lu ne ñu jaxase ko jaxase nañ fi lu ne jaxase nañ fi ba jaxase fi sax Alioune ak Aïcha jaxase nañ leen waaw lu ne jaxase nañ ko fi dem wax lii Alioune wax lii Alioune wax lii Aïcha wax lii Aïcha dem ci sayyidatuna Aïcha ni ko am nga ay am nga ay ñu la gëm ñu la gëm comme ni ñu gëmee Aliou waaw taxawal xeex comme ni ñee di xeexalee ñoom it Aliou lu ne wax nañ ko waaw pour jaxase waaye jamono ju nekk rek Aliou moom privilégié religion islamique parce que religion islamique aussi ni ko mag ñi daan waxee réalité lay ànd chef bi mën chef bi mënul doon lu dul amirul muminin waaw bu dogalee ko ñëpp ci war a ànd ku mënta doon ak foo mënta ju waaw waaye Aysa lu tax nanguwu ci sore mooy lu mu dem dem rek xelam dellu si ci ba mu waxee na ko yonent bi dénk mu doon xaar lu ne yonent bi ni ko na nga yaatal te uf ñëpp waaw mu xam ni ko ndekete yonent bi gisoon na lii gannaaw waaw mu xam ni ko ndekete yonent bi gisoon na lii gannaaw waaw xam ni yonent bi gisoon na lii gannaaw su ko defee loolu boo ko xamee dangay ngay noppalu boo ko xamul nag da ngay sonn waaw mais moom mu xam ko mu yaatal waaye gis nga ndénkaane bi ko yonent bi waxoon moom sayyidatuna Aïcha ba léegi ndénkaane boobu mu ngi wéy waaw kenn ku nekk loolu rek nga mën ak kër goo mënta nekk nga tijji sa dënn yaatal waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yaataloon waaw te Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Cherif nee na garaatu xat mi bi ñu ko yiir moom yaatu dënn moo tax ñu ñu yër ko parce que ku ñu wax ni wëliw bu ne sa leer dana ko tabb kooku su fekkente ni yaatu woo boo tabbee ñaar pare nga ci te wëliw yi dañu war a continuer di am ba adduna di tukki kon ñoom loolu seen njàngale la ñoom loolu seen njàngale la seen njàngale la ndax yonent bi lañu donn ci ci organisation waaw te yonent bi boo ko donnee ci organisation lu nekk dañ ci bàyyi xel lu nekk dañ ciy bàyyi xel waaw te mbooloom li nu seetlu ci séance yi mujj yépp ci xadaratul ilahi ci weer yi passé wax naa leen ko fii benn àjjuma ci bayaan ma ni leen ñi ma ci gis yépp yonent bi day soññi yi ma ci gis yépp yonent bi la mu def du discours mais day soññi waaw ndax def discours nii ak soññi bokkul ma ni leen dama gis ni day soññi dama gis ni day soññi heure bu ñu jógee rek ndax buy soññe moom danga koy xam min baru lumière am ba muy taxaw ak bois yooyu nga xam ni boo ko xoolee doo xam bois ban façon bois la ndax rafet buy soññe daf ciy jàppandu wax ba nga xam ni li muy wax daf ko ñor te ma ni la ma yéem mooy ñi muy waxal ñëpp ay wëli lañ ñi muy waxal ñëpp ca xadaratul ilaahi ay wëli kon kay moom soññul ñooñu dafa bëgg ñooñu soññi seeni àndandoo nooy soññee wëli boo xam ne mi ngi mi ngi ca xadaratul ilaahi ba toog sa kanam ma ni kon moom jàppandu boobu muy jàppandu ca boawam boobu di wax ba ànd ak xaal kon moom soññul ñooñu muy wax kon dafa bëgg maanaam ñooñu soññi ña ni ànd waaw te séance yi passé yépp moom la doon wax te loolu mooy réalité bi